Mhm. D'ailleurs, j'en profite pour féliciter mhm. et remercier davantage le directeur général, le jeune Jean-Michel mhm. Parce que, full ak fayda gu la gérer dossier bi te l'es continuer gérer dossier dossier bi Mme man damay faral de wax ce matin vous naa le dossier bi bu ministre ou le dugaloon loxoom sax bu yeboo parce qu'on on ne va pas accepter ñun li ñu promettre Sénégalais yi ci jaar ci yoon moi je n'occupe aucun poste pour le moment aucun je dis on ne va pas accepter ñun fi ñu jaar ci réew mi que suñu alal ñu koy jël di ko ARCOP de Sayarnian, mi ñu wàccee le 2 passé defagul li nga xamante ne passation de service le 7 mu jël décision suspendre li nga xamante ne moom euh, projet d'abord quand on interpelle, interpellé ba me suspendre qui ki interpellé n'est pas contractant le premier problème qui interpelle à APO Sénégal muy Seydou donc il n'est pas contractant te ARCOP vous suspendre seuls les deux contractants qui ont interpeller interpellé mu suspendre vous bi premier kon sayat dafa def lo xamanteni du deug ñu équipe bi ci liggéey def nañu dëgg te xam nañu mais ça va se régler d' nous tous on sait, on a discuté ça va se régler mais daa leen lu ci xew té lool moy la gravité de la chose vous vous rendez compte dem leen lire la décision de l'ARCOP li ko motiver dafa wax né banque Santander ñoom nee nañu kat. banque Santander c'est une banque espagnole. Hein, parce que loolu maa ngi ci ñew parce que ñom en réalité entreprise yi nga xamante ñom ñoo gagné marché à l'international crédit yi nga xamantene mom moom lañ la dam ko xamantene moy CS, e, mom mo yor crédit export c'est-à-dire yow nga nek entreprise espagnole mhm. soxla crédit bo xamantene dañ la ko wara financer pour nga gérer benn dossier à l'export mhm. euh, à l'international ñoom ñoo la koy jox mu ne ñooñu dañoo hey ñun financé tuñ de parce que problème am na ARCOP lool la wax le 7 le 8 di mardi le directeur général Jean-Michel Sen bind CSE banque Santander banque Santander lool musuma ko wax binduma ko fenn newul fenn les j'ai les documents mm. la réponse que la banque de Santander a donnée ARCOP a basé donc son argumentaire sur du faux et enfin malade mm. un jeune homme a xamante de da nga mm. nga que fi poteau électrique poteau électrique boo le sous-traitant parce que encore une fois de plus problème ce n'était pas Azer ak qui nga xamante moom moy Seydou kan problème bi c'était entre euh Seydou kan mom ak AAPO bële AAPO bële moo yow dotuma liguéw parce que jàpp naa ne da nga def escroquerie pour deux raisons raison bi si njëkk da nga maa facture DCMP nama dama lako wara fay 1 milliard 300 cent bo bolé ñaari facture yi Malade DCMP DCMP tontu ma manque réponse bi bon mon collègue ma envoyé le collègue la lettre de que DCMP a répondu à qui nga pas mooy APO bu Espagne l'Espagne. Neko, facture bi nga ma envoyé di ma laaj facture bobo. ma le sieur Seydou Kane au nom de APO Sénégal cette facture là ne vient pas de moi elle est fausse c'est ce que Seydou Kan a présenté à APO ou Espagne APO téye Yamoucha mu dem demandé waat ki nga xamante ne moom impôt et domaine ne ko Seydou Kane jox facture bu mu jàpp dama ko fay ne fay na ko ci yéen ba pare. avec voici le numéro yëpp. impôt et domaine daal di tontaat aéroport bu Espagne ne facture bii ngay wax ñun nekkul sax ci suñu numéro. Hmm. ça n'existe pas. ñaataa ngoog ñaar sur du faux. et enfin quand Jean-Michel Sène est venu nga xamante ne contrat bi lu fekk la il se rend compte qu'il y a une surfacturation poteau électrique en béton 1 million de francs CFA. quand il a posé les questions il a interrogé les acteurs les professionnels du milieu on lui a dit que le prix standard pour c'est 200 000 800 000 de surfacturation par poteau Jean-Michel lui il prend sur lui il dit à Apo, en e Espagne il a décidé mais dangay rompre sa contrat bi nga am ak sa sous-traitant mais man Azer li ma fek moy sama contrat yow la ko amal directement aw ko ak ki nga xamantene mom moy Seydou kan kon man dugaluma Seydou kan ci liguey bi d'autant plus que li ma fekk mu pro ko ak lettre yima gis mu joxe ko yëpp c'est du faux kon duma liguey ak ki nga xamantene mom moy Seydou kan boobu hmm. mais qu'est-ce qui se passe am ñu dem ne non fofu mom je prends tout mon temps d'ailleurs parce que hmm. c'est très important am ñu dem ne la garantie souveraine du Sénégal des TEP sous des sites un Sénégalais dafa mais ce projet n'a pas de garantie souveraine ce projet n'a jamais eu de garantie souveraine Moi, je may faral wax nit ce projet couverture financière la donné par le ministère des finances signé par Mamadou Moustapha Le document est aussi je ko laajee ma jox li ce sont des documents boo ci ne ma nga ne ma c'est-à-dire envoyé moi tel document ma envoyé c'est-à-dire que ce sont des choses palpables yoo xam ne ne teg na ko lettre bi DCMP c'est du faux lettre bi nga banque Santander c'est du faux. L'être de musuma retiré lettre bi nga xamante impôt c'est du faux ak surtout facture yi nga xamante mom montage financier def nako ko ko yëkkati ba près 2 millions alors que c'est 200 cent yëpp c'est du faux maintenant un tel monsieur parce que il bénéficie peut-être d'une certaine largesse dans dans certains médias des gens yu ko porteel presse mu taxaw ne mom mo bind ARCOP alors qu'il n'est pas contractant encore une fois de plus parce que ARCOP dans ses textes qui ko mën interpeller c'est un contractant pas un sous-traitant maintenant si s'il arrive que nous bëgg def ki nga xamante ne moom mooy Seydou kan parce que né nañ sonnoon na ci un contractant né euh, Jean-Michel Sen le jeune DG maintenant graw coow li mi ngi bari faisant un contractant mu bok ci ñu avance mu len defuma parce que nak set wetch lay liggéeyal set wetch oui mais que fait que fait Abass Fall dans cette affaire. justement assurance. xam nga motax d'ailleurs je vois que Gisna naa kenn wax ci nee mom Sénégal il vient de l'écrire d'ailleurs, ailleurs Adama Gaye gis c'est ça qui est terrible Abbas Fall il n'est ni DG du Santander du ARCOP du ministère des finances C'est un député parce que lui comme moi dama bokk ci ñu taxawu le jeune DG la ne ko refuser le but il faut refuser. maintenant Harald, non. il est présenté comme entremetteur. mais ce qui est archi faux d'ailleurs parce que mm. entremetteur pour qui d'abord pour qui. c'est-à-dire que quand on joue le rôle d'entremetteur ou bien d'entremetteuse faut fekk yow fekk ko fi contrat wala mm. faciliter le contrat le contrat a été signé bien avant l'arrivée de Jean-Michel mm. comment peut-il être un entremetteur d'autant plus que comme j'ai dit mais vous defal entremetteur da nga koy defal ko xamné ne amul contrat mais contrat bi signé nañu ko et le contrat existe entre Laser et Apor bu Espagne c'est ce contrat-là qui existe et Jean-Michel bi est le la top. et c'est pas dans le cadre d'une renégociation parce qu'après renégociation. quand on renégocie kan ngay renégocier. loolu wax bon on a entendu parler de renégociation renégocier ak ki nga xamante ne signé le contrat. Hmm. bi vous de renégocier bi mu xoolee daf les prix dañoo cher. au lieu que ngeen may jox 1500 villages yokk naa ko da ngeen koy def ba 1700 et quelques villages parce que prix yi ngeen ma fayoo ko dafa cher. gars yi mujj nangu ne ko d'accord nañu ko maintenant coowal xaalis boobu ngay dégg xam nga loolu coowal xa assurance la boo xamante ne liggéey bu ne day am assurance. Hmm. moom la banque bi teg ñoom dem nañ ba découvrir na assurance la moo tax ñu arrière gis naa euh, le journaliste Adama Gaye mi ci doon wax. maintenant il est exilé parce que nous sommes dans un état de nos droits parce que a ko porté plainte mm. parce qu'il a diffamé quelqu'un mm. et ce quelqu'un là l'a porté plainte mon ne donc de naan en gros oui pour nous, ah, mm. on aura l'occasion d'en discuter dans ce dossier là lii ma leen wax nii mooy li si nekk amul leneen loo ne nekk ci réellement